sigil te weytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy seek ka farjekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw na yaawat ña daawoote ña daawaate Moustapha kila am adduna doxi ba mu xamante suñ fataa fataa daal na fa duñ ko gën a si moom it ñu fi ñëw yóbboon na ko ci suñ suñ saaliw suñ suñ saaliw fu ne fekk na fa suñ fataa jaxasoo na lool nag euh, yàlla defee lii mu defit kóllër gi mu continuer ko ci kër gi jokkoo suñu Abdourahmane lu xew ci mbaam la aussi ñuy dañ cay dem dañ ko yëgal loo fi xewit noonu euh, yàlla xam ne sax moom waxumu koon sax màggal gi pour bañ koo sonal ci suba rek moom ci la ma woo rek ni ma maa ngi ci yoon wi waaw man ma ne ko nag comme loolu alhamdulilah kon bu ñu aussi euh, dinañ yóbbu ci sëñ bi ndax it euh, mooy kilifa Daaru Xudoos bépp toute la famille chef sëñ Maodo Moustapha euh, moom it muy taxaw taxawaay boobu aar njaboot gépp bés bii di bésam ndax bésu sëñ Tuubaa la euh, ñun ñëpp suñu ànd ceeg moom moo tax bi nga nee da ngay ñëw dama ne kon bi nga ñëwee rek nañ la yëgsi sëñ bi ndax mooy suñu kilifa mooy bunt bi ci ci ci ci mooy suñu bunt ci yoon wi moom wax yàlla bañ koo fàtte ci ñaan parce que Roobou Akhlal mu ngi taxawu njaboot bi euh, mu ñuy wéttil euh, charge bu rëy nag la waaye mu ngi ciy taxaw mi ngi ciy taxaw mi ngi ciy dox dafa am nag moom yi nam boo xam ne mii boo ko xamul doo ko xam euh, effacé wu ci yu bare bare bari waaye mu ngi mi ngi dox hmm. mi ngi dox ñu nekk moom xam nañ ko xam nañ ko baax a baax a baax mm-hmm. moo tax aussi mm-hmm. kun am ko xam ne kii kun war a mën a wone la mm-hmm. boo ñëwee fii moom moo faaw faw faaw ñëw na la ci moom ndax moom rek la am waxtu nekk ci moom la nekk moom la ñu déglu euh, suba ngoon guddi bëccëg dëkk na loolu di leen baalu àq bu baax di ñaan yàlla yal na yàlla boole jéggal ñu sunu nuyoo tey ak sunu ziyaara ñu ngi siy jiital fa tabaarakallahu ki nga xam ni tey jii ñun ñépp sunu bët mën nañ ko jàppee maam borom Touba te duñu juum ndaxte tamit kilifa gu baax gii nga xam ne moo ñëw si ziyaar si ko dañuy dégg si ay kàddoom mu ne an baay bu nekk ndeke mooy sekkere way juróom mu ne alwaladu sirru abiki doom ju nekk rek mooy sekkere way juróom mbàkke bu ñu ñëwee fa tabarakallahu fekk si la yàgg say njaboot yaag say taalibe fa tabaarakallaahu ak say mbokki jullit ba si say dëkkandoo ñu ñëw ziyaar si la ànd ak sunu kilifa loolu jaadu na jëmm ji la seet si mooy Thierno Ahmed Tidiane Ba ibnu Thierno Jibi Ousmane Abou Daouda di xalifa Bambilor yàlla dogal fa tabaarakallaahu njaboot gi nga xam ni ñoo bokk dëkke fii si biir Touba moom mu bokk si njaboot googu ndaxte bi muy jagleel ay xasida si magi réew mi kenn jiituw si sa wayjur nee na yéen waa Sénégal boo leen gàttul xel kaay leen ma déy leen ñu ne ko si lan wallahi lazim mune ne ilaa ilayha yaa jumu'i li nadbin aylan ni'mal mazuru mu yéen waa Sénégal fobu leen donte da ngeen ni dox baa ngeen ni war loo leen mën a jël waaxu leen bu leen kenn njiit si yiw bi nga xam yàlla jagleel na ko maam xaadimul kon fa tabaarakallahu ah bu bés bu toll nii ngont lu toll nii ak ni jamono xate nga xam ni sunu jotaay bii yàlla dogal na yiwu yàlla kese la Thierno daat ne dinaa jël samay dàll ànd ak samay njaboot mataa samay oto dem Touba fa tabaarakallaahu ngir sàkku ji yiw boobu fa nekk bi muy ñëw. ànd nag ay muqaddam yoo xam ni fa tabaarakallaahu ay ngënk lanu ñu wéeru si moom wéeru si way juram wéeru si Seydil Hadji Malick ba si Cheikhuna Tidiane ñoom ñëpp boot na leen ne leen kaay leen ñu dem Touba si samay mbokki bopp si samay wayjur si samay soppe waaye tamit si samay sëriñ fa tabaarakallaahu lii nag mooy sabab bi nga xam ni moo tax mu ànd ak njabootam ñëw yalla dogal nak comme sunu wayjur wii ni mu ko waxe sànq si ay kàddoom mbàkke jërëjëf yal na yàlla guddal sa fan yal na yalla yokku sa wér bi jaaxi nabil mustafa kollereem gu doxoon si digante mook Serigne Abdul Fatah dëgg dëgg dëgg dëgg yaa koy feddali ba si sunu wayjur wii jotaay bi nak yal na ko yàlla yàggal yal na ko yàlla saxal te lépp nekk barke ak yiw bi jaaxi nabil mustafa waaye nag du tee a ah, ñu jiital yar si bërëb bi gu mat sëkk ngir jagleel ko sunu wayjur wu tedd bi waaye dañ koy jaarale si yoon wi mu ne arab daal dëgg-dëgg mooy wax booy duggee si kër nanga jaare si bunt bi mu ne kon sunu bunt fii tey Seydina Omar mii la muy buntu bu yaatu Seydina Omar wuutu na fépp sunu maam gaynde Fatma taxawaayam taxawaayam pas-pasam na mu doon liggéeye gis nañ ko fa tabarakallahu si jëmmam bu ñëwee nekk sunu diggante ak xalifa bu tedd bi waaye dëgg-dëgg lii buntu bu yaatu la Seydina Omar mu ngi liggéey wuutu na Seydina Aline wuutu na Seydina Abdou Fattah wuutu na sunu wayjur wu tedd ba wuutu na fa tabarakallahu mboolem njaboot gi mu ne fa ngeen nekkul liggéeyal na leen foofu ah sunu ñëwu tey bi ngir yàlla fa tabaarakallaahu ginnaaw yàlla taxawaayam la yàgg naa ñëw Touba. yàgg naa ñëw Touba naam. waaye man a miinu ma Touba lu bari. bu ma ko xamoon kay. xam ne fa tabarakallahu xalifa bu tedd baa ngi fii. a ah, ma ñëw na jàkk si moom. xam ne fees na dell sa mag ña. si fauteuil bi mu toog. fees na fi dell. mu wax ko léegi. mu ne nag. uute na nag fa tabarakallahu ak ñeneen ñi nga. moom day jëf. moom daal day jëf. te du te du wax. dafa effacé wu. bëggul kenn xam ko la muy liggéey bokkul ak ñeneen ñi fa tabaarakallaahu na ñuy doxale mu ne liggéey na façon liggéey yi bari na am na ñoo xam ni dañuy liggéey ngir yàlla am na ñoo xam ni dañuy liggéey ngir fës waaye am na ñoo xam ni fa tabaarakallaahu dañuy liggéey ngir ñu gis li ñuy liggéey lan la waaye moom fa tabaarakallaahu Seydina Omar bokk na si ay kàddoom yi mu wax léegi ak njaboot gi yëpp ñëw nañu bokk bokk jël sunu wàll si ziyaara bi si bés bi ndaxte tamit am nañ si wàll sunuy diggante ak sëñ Abdou Fata waaye sunu diggante wayjur ak Gaynde Fatma kon loolu la ñu kon loolu la ñu ñëw feddali si. sama way si biir dundam. su dundoon bu dundoon. ba tey jii du sol dàllam. dina sol ñëw ba si bërëb bi kon nag fa tabarakallahu tey dem na maaka ko wutu ñëwal naa ko. ma ñëwal sama bopp it. ñëw bu ma neex nag. ñëw di la indil ziyaara. waa Bambilor gépp di la indil ziyaara. sinu xadara bi foofu. ak mbokk yi foofu. di taataan nag ñaan. loxo si sa barke si sa gémmiñ nga ñaanal ñu di ñaan nga seedañu gis ñu ràññee ñu ñu nit ñu seeda la gis la ràññee la ndaxte xam nañ ne toogaayu maam Serigne Touba Serigne Touba teg toogaayu Serigne Touba rek la laaj na ma léegi waaye baa sonnu leen si yoon wi ma ne ko déedéet waaye Serigne Touba keñ kan mooy jóg ngir wutali maam borom Touba di si sonn waaye dëgg-dëgg xanaa ko amul pas-pas ku amul pas-pas donc mooy sonn si yoonu maam borom Touba mu ne lu yoon wi gudd gudd lu mu metti metti si ay waxin du metti mukk du gudd mukk ngir yàlla ak seen cofeel sunu cofeel ak Serigne Touba mooy lama waxoon rek waxu bu rasulillahi waay daa un wala zatun loolu rek lay waxaat fii kon fa tabarakallahu mu ne kontaan naa baax mu ne montur bi bii ma takk nag ngi koy tekki takkal xalifa bi mu ne tey jii lay doog a takk montur bi bu ko defee nag fa tabarakallahu heure bu ko gisee rek xelam dal si man mu ñaanal ma yàlla mu ne fa tabarakallahu mbàkke jërëjëf jërëjëf Cerno bi dafa wax ne mi ngi lay delloo ab nuyoo bu ànd ak ay ngërëm ak i cant yoo xam ne am na fa mu tàmbalee waaye yëmut fenn waaye nee na li la tax a jóg di lislaam moom mooy li nga xam ne mooy tool boo xam ne ci la gaañu baax ñëpp doon kenn ku ne di ci xëyee ko gont moomu nag sëriñ tubaa rasululaahi sallallaahu alayhi wa sallam moo ko def muy jëwrinam ci tool bi kon képp koo xam ne ñëw nga ànd ak moom ci tool bi di ci liggéey te soo liggéeyee rafet duñ man lu gërëm la ak sant la bànneexoo ñëw gi lool rëy na ci moom lool yëg na ko yàgg na laa dégg itam waaye tey la la ma sa gis waaye li doon dégg lépp it bi mu la gisee te tey gis na ko mu ngi lay sant ci jaar gi nga jaar ci sa Omar mii ànd moom ñëw ci moom te Omar di di jawrinam di doomam di léppam kon képp koo ànd nga ak sëriñ Omar ñëw fi moom du man lu jàpp la ak ngëb la tànk yi ngeen dikkee ak yi ngeen di daloo yàlla nag sama borom def muy ngërëmal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak Serigne Touba def ko it muy ngërëmal Cheikh Sidi ma Cheikh Ahmed Tidiane Sarif mi nga xam ne ci moom ngeen jokk nasu ci moom di ci dox na xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Sarif ak Serigne Touba du ñuy ñaari nit kenn lañ kon nag képp koo ñëw nga fi te aju ci moom. koo mën a doon sëriñ bi ne duñ mën lu jàppale ak téye la ak jàppale jàppale ni seen bopp bis daal def na leen ngay koo xam ne ci kër gi yaa ngi moom a ci yem ak yéen ci yoom cër ngir yéen a bokk réew mi bokk diina ji bokk lislaam bi kon nag lépp luy tax mu jàkk bu ngeen ci gon bu ngeen ci xëy bu ngeen bu ngeen dikk fekk mu xëy ci kon nag mi ngi leen di gërëm leen sant di leen dalal di ñaan ci barkeb Sëñ Tuubaa mi tax ngeen jóg lépp lu leen itteel lu mu mën doon sama mi fay aaji yàlla na ko faj jërë jëf waxay nuuri daa dem leen dëkkee ki sayqi Mustafa ma nga yeesalaa Tuuba bi tajdiidi diinihi yërëm ndaw ña magal mag ña moo doon Mustafa di sayloo jigéen ña denculoo góor ña kulluhum